di wax ne sëñ Galas man awma woon sax parol ndax ñun bu ma fari waxee rek mel ni na wax nañ xam nga bu boo gisee ma jël parole na ma la gisee woon keroog ak na ma waxe woon ak tey daa bokkut keroog damaa meroon wax la ma wax ndax ñàkk jox gëdd giñ ma ñàkkoon a jox gëdd looloo taxoon ma wax ñàkk gi ñu ñàkk woo te xam ñu xam li ñu nekkee ci département bi xam liñ fi jàmbaaree nga gi ñëpp romb fi jigéeni parti réew mi looloo taxoon ma nit ma doxalee na ma doxale woon kon nag tey bi ma Fary Ndiaye waxee ak man suñu coordinateur sëñ Isaaxa wax ak beneen kilifa goo xamante ne nii woo ma ci këram wax man ca laa door a li nga xamante ne ni ci laa nekkoon ak xeex bi ma waroon a def ndax lu yewoon naa samay oto nag préparé jàkkaarloo gi yéen ba lu ma ci am jël rek waaye loolu laa fas yéene woon comme nag daj na tey ñu ngi ñu ñu ngi lay ñaanal ci kàttanu yàlla ndam te dinañ fas yéene laxasu takk suñu ndigg nañ ko àndee woon ak yow ba nga am ko noonu lañ ko fas yéene waatee ànd ko ak yow ba nga gañewaat ko ci kàttanu yàlla. dañuy yëkkati kàddu yi cant jëmale ko ci sëriñ Galas Mbàkke Kaltuum ndax lii mu def nii tey dafa bari lu muy symboliser. dafay firndeel ne moom charge bi ñu ko jox xam na lan la ndax defoon na déplacement campagne bi ñëw ba suñu kër ñu dajale fa ay quelques responsables waxtaan engagé waxoon nañ ko foofu te yaakaar naa ci logique boobu la ñu nekk di ci dox mënoon na ne loolu doyoon na mu yamale woon ko foofu mais mu jëlaat engagement déplacé wu ñëwaat fii ci suñu quartier général ñëw ne daf ñuy si ñëpp gis campagne bi ni mu déroulé yaakaar naa ñu ngi ci njeexintal gi bu ñu génnee ci semaine bi dernière semaine bi lañu dugg donc ñi ngi naan ñi ngi ci li gën a am importance mooy fi campagne bi di jeexe ndax campagne bi 21 jours la ci biir 21 yi jour bu la ci raw dootoo ko dabaat donc jour bu ci nekk war nga ko xool xool 24 heures yi nga xamante ni mënoo muus ak a màcc ba def ko vingt cinq heures lan lan nga ci war a def li si jiitu ci li liñ ci war a def yaakaar naa ñëpp gis nañ réew mi Touba ak engagement bi ñu jël ci biir coalition bi activités yi nga xamante ni ñu ngi koy def si biir Touba di dem si biir nit ñi di waxtaan ak ñoom te jàpp nañ ne liggéey bi loolu la mooy dem jege ji nit ñi loolu mooy cëru parti réew mi ci biir coalition bi ndax kilifa muy le président Idrissa sec lim ñu wax mooy sama njaboot ak njabootu président Macky sàll benn la du ñaari njaboot loolu la ñu xam loolu la sëñ galas xam moo tax loolu la ñuy doxee mburoog soow bi loolu moo ko indi donc ñun engagement boobu la ñuy jël lépp lu ñu war a def ci campagne bi ñu ngi koy def yaakaar naa ñu ngi si miiw campagne bi mais bi ñu commencé ba léegi activités yi ñuy def ñëpp teg nañ ci seen bët mais duñ ko wàññi dañ koy yokk li tax lu bari la bi ci jiitu mooy enjeu wu élection yi ak fi mu toll le président de la république muy président Macky Sall ñëpp xam nañ ne élection bi élection bu am enjeu la ñëpp xam nañ ne aussi président de la république élection yi élection yi ko ñor la ñëpp xam nañ ne gagné Touba aussi lu ko ñor la te lu war a mën a nekk ku dëkk Touba ku war ngaa am ay xalaat yu baree bari war ngaa xalaat juge ñëw Touba def une heure trente aksi jaar ci autoroute boo xamante ni doo daal doo laal air daan doo dara kooku yaakaar naa war naa rusa élection ñëw mu ñàkk votel président Macky nit war naa jommale boppam romb hôpital bi ni hôpital niveau 3 la ñu dippee ko Khadim président Macky Sall Serigne Touba mu toll ci milliards nit war na ko rusa romb ne du ma voteel président Macky Sall wante inondation yii nekk di ñu sonal ñëpp xam président de la république engagement bi ci jël ci Touba dégager vingt trois milliards def ko ci Touba pour dakkal inondation boobu loolu war naa tax ndépp képp ku nekk Touba voteel président Macky noonu laa si mën a tuddee yeneen ak yeneen yu baree baree bari mais Serigne Gallas Kaltoum mii dong doyoon na pour ñu vote la liste noo bokk yaakaar ndax lu baree bari benn rek laa ciy jël comme témoin ndax bu ma doon wax ci Serigne galas man naa cee wax lu baree baree bari mais tey dañu àndoon yàlla dafa dogal ñu àndoon ci suba am kilifa gu ñu ziyaare ji woon mais kàdduy témoignage yañ fa dégg te fu ñu demoon ci kilifa gu man di doon loolu lañ fay dégg xam nañ ci moom lu baax lu baree bari mais des fois da ngay dégg ci moom lu lay ndax danga naan lii nu ko nit di xalaate te moom noonu la koy xalaate di ko def muy bi ñu demee tey mbusoo bi ci kër sëriñ Afe Bousso ñu dégg fa ay kàddu yu témoignage ci Serigne Galas kàddu yu rafet a rafet kàddu yoo xamante ni nit ku yiw noonu lay def te buggul xëy na ku ko wax xëy na bu ko sëñ bi waxul woon moom du ko wax ci lu baax loo xamante ni mi ngi koy def noonu lañ xamee mu koy def ci penc yi Serigne Touba yëpp kon Serigne Galas donc jar na ñu voté la coalition de la la coalition Benno Bokk Yaakaar kon nag damay ñaax bépp responsable bu parti réew mi mais bépp responsable bu nekk si coalition Benno Bokk Yaakaar ñu jël engagement ferme ci lii ñu nekk ndax lu yitteel président de la république la rawatina nag la jeunesse ndax Djily Mbaye wax na ko léegi politique buñ koy wax li ëpp ci liñ ciy def jeunesse bi lañ ci yaakaar mais dafa am yu am solo ay facteurs yu am solo ñu bàyyi ko xel muy nit dina dem ci ay élection gagné ko ba pare perte mooy nga sonn ci 21 jours yi campagne bi dem ba jour élection nga dem tëdd sa kër nañu dem ci centre de vote yi jour élection nañu dem ci centre de vote yi sécuriser vote bi ba 18 heures jot mandataires yi fa nekk ak représentant de bureau de vote yi fa nekk bu kenn déplacé wu ci bureau de vote te génne wu fa PV ñun bu 21h jotee wala 22h au plus tard suñuy résultat war nañ koo xam war nañoo xam ne la coalition benn Bokk Yaakaar jël na ndam li fii ci département de Mbacké te ndam loolu incha allah dinañ ko am. li ñu fi indi tey nag mooy liggéey bi ñu tàmbali woon ci pré campagne bi ba ñëw ci biir campagne bi bu ñu doon évaluer dañ naan ñi ngi ci. 40 pour cent bi jàll na mu des 60 pour cent boo xam ne euh, moo gën a sax metti li jàll ñëpp di ci bokk di doxandoo ngir lan lu ñu may ndam ñeen nekk ci ci taxawaay boo xamante ni bii bu ràññiku la waxtu bu nekk ñoo ngi ciy jokkoog ma fëri di xam fi ngeen tollu ak ni ngeen di doxee kon day rafet bu fekkente ni dañu ñu jël def ñu tedd ci département bi ñu ànd ko ak suñu frère Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaynde Fatma ñu naan ko Cheikh Abdou Bali boo ko tuddee rek tudd nga ñëpp seet si leen ci tudd képp ku nekk ci liste bi muy Mohamed Cissé Cheikh Bara Gueye madame Ndiaye Mariama Diallo ak soxna Roqay juuf ak suppléants yi ak suppléantes yi nekk ci liste bi di rafetlu bu baax li nga xamante ni ñoo ngi koy yëg boobu ba léegi te ngeen koy dox di ko wax ci loo xamante ni mooy amal njariñ coalition benn Bokk Yaakaar ci ubbeeku gi ci yaatal gi mais ci taxawaay boo xamante ni bii amul fu mu yem yëg nañu ne li gën a ñor président coalition bi mu njiit li mooy ñu fas yéene di def porte à porte di seeti nit ñi di waxtaan ak ñoom comme ni ko ñu bari di waxee ndax ci biir dëkk bi ñu nekk daf cee rawati am na ñoo xam ne dañoo yor seen làmmiñ ak seeni kàddu di ko yëkkati di ko teg ci deru coalition bi ak ci deru njiitu coalition bi te la wax ak li laale dara bokku ci coalition boo xamante ni bi muy investir ci département de Mbacké rawatina ci senegal mais rawatina ci département de Mbacké ñan la ci dugal njabootu sëriñ bi ñi mu ci dugal ñëpp kenn génnu ci sëriñ bi tey dañu naan coalition benn Bokk Yaakaar bu ñu doon seet ci senegal fi mu investir fépp bu Touba bi moo ci gën ci li mu investir ci dëkk bu mu dem ca lam fay tànn ndax ab dëkk boo fa ñëwee rawatina Touba jël njabootu Cheikh mu Moustapha def leen ci biir la ngay wut ak la ngay doxlu jël njabootu Serigne Fallilou dugal leen ci biir noppi gestu baykat yi ak sàmmkat yi jël lu bokk ci ñoom dugal ci biir xool jigéen ñi nga xool ne faj bokk na ci li nga xamante ni dana may nit njariñ ci la mu nekk nga jël ko dugal ko ci biir liste bi jël ñaari ndaw bu góor ak bu jigéen nga xam ne ndaw bu góor ak bu jigéen li ñu mën a contribuer ci li ñu nekk am na tàmbaliwaay mais amul yemukaay nga dugal leen ci biir liste bi kon mel ni bi loolu amee ba noppi ñoo ñi di jóg di yëkkati ay kàddu yoo xamante ni kaddu yu rafetul la naam ñoom loolu lañu am mais li ñu am ak li fi nekk bokkul fii lan moo fi nekk son excellence président bi ko yàlla dénkee réew mi ak léegi yàlla dogal na ne am na chef d'état yi ko fi jiitu naam def nañ seen kemtalaal kattan ci Sénégal mais rawatina biir Touba li ñu mën ak su néew tàmbalee ko ci président Senghor jaar ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade mais li président Macky Sall jëf ci biir réew mi di Sénégal Sénégal partout nag laa wax mais rawatina biir Touba gi ñu nekk bu ñu doon xool di peese ay jëf da nga naan jëfi président Macky Sall mooy nday di bàyyi jëfi président bu fi mos a jaar tey jëf te loolu foo ko gis ko fii ñu taxaw di wax dama kàddu gi sax ma rëcc ci njiital ndax fii ku taxaw sa xel dana dem ci waa kër Serigne Falilou ndax Serigne Modou Bousso Dieng El Hadj Modou Samba Mbacke Falilou sa xel dana dem Daara Moussi dem ci Mame Thierno Birahim dem ci Serigne Moustapha Absa yal na yàlla dolli ay leeram këram mi ngi nii ci gannaaw dem ci kër maam Thierno mi ngi nii ci kanam kër Serigne Cheikh Awa Balla kon li mu jof ci réew ci dëkk bee ku néew boo xoolee ci sa càmmoñ da nga fi gis tëli boo xam ne mi ngi fi tàmbalee wër dëkk bi def fukki kilomètre ak ñett te këru kilifa gu mu laalul ci dëkk bi amul ndax ay penc la wër fi mu jógee ba dellusiwaat fi mu dellusi loolu réalisation la te am na lu ko jiitu woon ndax boo jógee Ndakaaru tey jëm si Touba. jàpp naa ne bu yàlla dimbalee doo ko daw ci lu mat ñaari wax te Ila Touba moo ko waral te moo ko jëf wax nañ ko ci fajukaay li mu fi investir muy hôpital boo xamante ne bii euh, amul ci réew mi bi mu ko fi defee ak léegi bii moo ci jiitu ci dayo naam def nañ fi yeneen mais ak ak gëdd gi mu jox bi def Touba amul feneen boo demee ci hôpital bi ñu naan hôpitalu Matlaboul ni jannatu ci jamonoy Cheikh Salih Mbacké yan na yàlla dolli yërmaande ci moom te tasu ci barkeem la muri di dajale woon li ñu am te nekk bitim réew ak biir réew mi tabax fi hôpital boo xam ne ñoo ko njëkk a def ci askan wu bokk ci Sénégal dajale li ñu mën mu ëpp ay milliards ñu def ko ci benn hôpital. hôpital tey boobee boo fa ñëwee président Macky Sall ca barab suuf sa fa desoon tabax na loo xam ne ñett te ne wala mu ñeent te jëf-jëf a jiitu woon. loolu ay réalisation la boo ñëwee ci wàllu ndox ci dëkk bi ndëkk bi daan nañ toll ci mar woo xam ne daan na yéeme na bu ñuy màggal tey amul benn gox booy xool ci dëkk bi te limub ay forage ay lim laa la wax nekkuñu fa yoo xam ne dañ leen a connecté ñu dugg ci biir dëkk bi ba yàpp naa ne lépp loo xamante ni gàllankoor ndox la woon amatu fi. kon léegi ci des mooy dafa nekk ci mandat boo xam ne am assemblée bu taxaw te am majorité bokk na ci li koy dimbale. ba li mu tàmbali ci tubaab mën ko yeggale mais li mu tàmbali ci Sénégal yëpp mën ko yeggale kooku nag dafa laaj taxawaay naam yéen a ngi ci moo taxoon ñu yow seet si leen li ngeen ci doon dox gis nañu ko baax na mais nañu jàpp ne li des ci suñu kanam mu ëpp doole na ñu delluwaat ci quartier yi gën a sori ba fi dëkk bi yem tàmbalee fa bu ñu xeeb fu ñu demoon ñu dellu fa li ñu war a lijjanti mooy xool wax nañ ko Touba boo xoolee li fi voté matuñu trois cent cinquante mille hectares ñun war nañoo ak liggéey bi ñuy liggéey war a góorgóorlu ba bu ñu àggee au soir du 31 juillet ñu góorgóorlu ba am 250 000 hectares yoo xam dañuy woteel Benno Bokk Yaakaar te loolu li koy maye mi ngi fi ndax nit ñu déterminé wu góor ak jigéen mag ak ndaw di xëy di gont ci luy indi ndam loolu loolu lañ doon ñëw ngir wan leen ne yëg nañ ko. ci turu parti bi ci turu coalition bi ngir soññ leen ñaax leen ñu gën cee góorgóorlu ba bu ñu àggee incha allah au soir du 31 juillet suñu borom defal ñu dem wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mais ñun ñëpp ñoo ko bokk lépp lu ngeen di def ci li ngeen di liggéeyee président Macky Sall la war lépp lu ngeen def di liggéeyee soxna a ñu ko te lii ab tàmbali la bu ñu ci yem incha allah dinañu ñëwaat ngir gën a jàpp ci liggéey bi. macha allah jox ko jox ko Mortala mooy trésorier. Mortala waaw da nga koo fàtte nuyuwaale bi ngay nuyu. Mortala Mortala Diagne. te mën a far a wax lu baax. waaw bu baax dañuy ñëwaat. vraiment